bokki lislaam bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare sant yàlla bu baax julli ci sayduna muhammad sangub sang yi sant sëriñ Tuubaa Mbàkke mi tax nu tal ñëw nag tey ak yéen ci mbir mu rëy mu am solo mu sëriñ Tuubaa fonk ku ne xam na diggante sëriñ Tuubaa ak alxuraan tey wërale biir réew mi ak bitim réew ak foo dem waaye daara kaamil ji am Touba Cheikh Abdoulaye Laat liggéey ko fa Serigne Touba gëmee ne alxuraan bëggee ko fab alxuraan teg ca kaw doon tëdd moom ci suuf bis boobu nag lan war a ñëw ak yéen waxtaan tuuti di waxtaan wu am solo. woo xam ni wii jongante alxuraan baax na fu ne waaye defe ko Touba ñu koy def feneen sax taalibe Sëriñ Touba lañu moo tax le deux ak la trois ak le quatre fu nu jëm ci weeru safar ak lu ñu koy gasandoo xanaa alxuraan looloo tax tey plateau bi am solo lool am na lu bari lu bari nekk ci ci kanam daan ci ñëw ak yéen waaye tey ma toog ak murid saadix ku ñëpp déglu yoon wi ñor ko sëriñ Tuubaa ñor ko muy sëñ gànn Messere moom laa dendal nii tey ci biir plateau bi moom laa bokkal waxtaan wi ci kanam tuuti da ngeen ko dégg ak kan sëriñ Moustapha Gaye ma mbégte nag ci toog ak moom moom bàyyi ko gay moom Cheikh Abdoul Khadir ilimaani teg ba léegi nii ma dend ak moom dend naa ko bàyyam ba tey ci kanam Cheikh Abdoul Khadir moo tax tey ma am mbégte ci émission bi lool waaye xam ngeen ni am na kuy ñëw yegg seegul waaye léegi mu yegg si muy sëriñ Xaali Jaxate ci ñuy jàppale sëñ Modou Xabaanum sëñ Fallou ci alquran ji seex Cheikh Amadou Cheikh Amadou Muntaxa dénk te bokk sëñ Jili nag sëñ Jili ñang nag ànd ak waa kër sëñ Modou Faa Jama ñang yëpp def lu rëy sëñ Moussa dana ñëw gën noonu ko leeral ci prix bu mag bi ak jëf ji ci Cheikh Amadou Muntaxa jëf démb daañu leen ko wan waaye jëf ji ci Cheikh Modou Kara Noreyni généralu Xaadimu Rasuul ki nga xam ni benn minute bu mu dul tudd amut daañu leen ko wan Serigne Makhtar Jenn ak jaayante yu bari gërëm bu baax Abdoulaye Dia Sodiko jàmbaar ji nga xam ni moom itam fi mu teg alxuraan ak li mu ko def lu ñu leen dal alxuraan lu mu doon Abdoulaye Dia def na loxoom ci biir yàlla na ko yàlla fayal ak Serigne Touba ak maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam kon bala may sori damay bàyyi sëñ Gànna ma bàyyi la nga nuyoo nu doog a dugg nag ci biir waxtaan wi may si sëñ Moussa laaj ko lu waral plateau bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin wa bokki jullit yi bokki wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak yi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko ba lépp lu mu naalal lislaam mu àggale ko di ko ñaanal mboolem njabootu Cheikhul Xadim gi ak mboolem kilifa diine yëpp sëñ laay noo ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare ci jataay bam solo bi di jël nuyoo waa kër gi yëpp di ko teg sa loxo di nuyu sëriñ Moustapha Gaye mii nu feggool moom it di ko sant bu baax ci jataay bi di nuyu bokk yi nga xam ne ñoo am yitte ju kawe seen jiili ñang ni ko waxee léegi ci taxawal jëf ji ak bokk yu baax yim ci àndal yépp ngir euh, bis boo xam ne dañu koy defal wala jëf joo xam ne dañu koy defal ku tedd ki di nuyu ñëpp di balu ñëpp xaq jërëjëf sëriñ Gana am ñu mbégte lool sëriñ Moustapha gay ma bàyyi la nga nuyoo tey nag yow yaa jógee kër Cheikh Abdoul Khadir ma am lool ci dalal la nga nuyoo nga leeral nu nag mbir mi fi ngeen ci toll ak yenn réew tey ñoo bokk ci jongante bi ndax jongante bi du Sénégal rek aoudu billahi min asheytaan irrajim <clears throat> bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaara di leen ndokkeel Euh, di tàmbalee nuyoo bi ci fadilatu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon wi di ko ñaanal suñu borom tabaaraka wa taala mu yàggal ko te kattanal ko ba naal yi nga xam ne moom la am ci lislaam bi am ko ci yoonu maamam bi yëpp mu yàggale ko te ñu ànd kook moom. di nuyu di di siyaare kilifa diine yëpp ak fu ñu mën a ne ci réew mi barab bu ne ña fa yàlla teg ñu ngànk diine ja ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen siyaare bu baax a baax. Euh, di nuyu sëñ Ablaye mi nga xam ne moo ñu dalal ci jataay bi tey euh, di sunu lépp ñu ànd ak moom jataay bi yàgg ak moom lool yàlla boole na ci wet yu bare bari macha allah. wallaay wallaay na yëpp sax mënu si ko wax. Euh, di nuyu itam sëñ Gana Messere mi nga xam ne moom itam ñëpp xam nañ ko ci yoonu Serigne Touba wi. waxtaan yu solo yi am yu solo yi nga xam ne moom lay def yeete gi ak jàngale gi muy jàngale sëriñ bi. ñu ngi koy ci ñu ngi ci am mbégte ci moom bokk gi ñu bokk ak moom jataay bi tey. Euh, jërëjëf sëñ Ablaye ci laaj bi xam naa dañ ci tàmbalee rek comme ni ko waxee uh-huh, uh-huh. Euh, jataay bi li ko waral mooy dafa am xew-xew bu lislaam bu am solo bu ñu ne ci sunu kanam ñu dëtmal ko euh, di ko waajal nag bu bis tey bu bis ni tey delsee muy cérémonie bu mag a mag a mag boo xam ne moom lañ fas yéene amal ci Touba waaye cérémonie bi rek dafa am lu ko jiitu ak lu ko lu tax cérémonie bi am ku ne xam na alquran ni ko sëriñ bi fonke woon ku ne xam na alquran fi ko sëriñ bi tegoon ku ne xam na alquran li ci sëriñ bi liggéey lim ci wax lépp mëni su ko nettali lépp waaye nag mën nga caa indi ay benn benn bayit yoo xam ne dana tegtale li ngay wax sëriñ bi dafa wax ne wajal wajal bi jaahil muntaqa xayaat yi riayat al qurani dil ayat ñun ñun bayit woowu sax mooy sunu slogan ñun ñun waa grand prix bi bayit woowu mooy sunu slogan moom la ñuy ubbee moom lañuy ñuy tëje dafa ñaan sunu boroom ni ko Euh, sama dund man sëñ Tuubaa sama dund na doon luy sponsorisé alxuraan. la ilaha illallah. sama dund mooy sponsorisé alxuraan ba ba ba ba ma fiy nekk ba ba ma fiy jógee bu te moom du fi jógee ndax li mu waxoon ne damma xayaati la xayaati laay kon ak dundam day continuer hmm. ginnaaw ak dundam day day day continuer nag moom ak day day continuer di sponsorisé alxuraan incha allahu taala moo tax euh, bayit woowu ñun waa Grand Prix moom la ñu jël def ko sunu sunu sonata moom la ñuy ubbee moom moom la ñuy tëjee. waaye nag la ci gën a euh, yéemeeti ci biir bayit yi mooy mhm. wajaal bi jaaxil muntaqa néew néewut bi jaaxi muhammad néewut yu baree ngi fi mu bàyyi ko ni muntaqa yaa ilaha ji dellu si dellu si dajeeg jamono sëñ muntaqa ganaam biri bi juddu dëgg la muy muy muy sew-sew bu doy waar mhm. bu doy waar nag boo xam ne euh, ku ko seetantal rek mën nga cee jànge lu bare bare bari euh, ba noppi itam sëñ muntaxa yitteem jëpp jëm ci njàng ak njàngale itam nag waaw kon loolu itam am na lu muy am na lu muy tegtale dëgg la Grand Prix bii nag juddu ci juddoo nag ci ëttu Serigne Touba waaye nag tàll ay ay ay laafam ba maasale Sénégal gépp yemu ci mu daj àddina bépp ñu Grand Prix international Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ni ci waa Sénégal di bokkee noonu la ci waa Maroc mën a bokkee noonu la ci waa Arabie Saoudite mën a bokke noonu la ci ñeneen mën a bokke <laughs> kon dañ ko ubbi kenn tëju ko euh, xalaat bi nag juddoo ci ku baax ku bokk fu baax yàgg ci alxuraan lool te xamul lu moom muy sëñ Jili Ñaŋ muy sëñ Moodu Xari Ñaŋ ku sëñ Moodu Faajama Ñaŋ dëgg la ñooñu ku leen xam-xam ne ñi ci alxuraan lañ dëgg la dëgg la dëgg la euh, bañ ko xamee ba léegi ci jàng alxuraan ak jàngaleku la lañ ko xam dëgg la am ci am positif lool itam nag ci diggam ak sëriñ bi macha allah. dëgg la ci moom la xalaat bi juddoo. Mm-hmm. mu gis ni Grand Prix bu ne baax na. Mm-hmm. waaye Grand Prix bu ñu tuddee Cheikh Ahmad Bamba nag amagu fi. dëgg la te a am. ndax sëriñ bi bu defee li mu def ci alxuraan ba noppi euh, jaadu na nag bu ñuy bu ñu naan grand prix diw ak grand prix diw ñu ne grand prix sëriñ Tuubaa moo ci war a jiitu sax dëgg la moo ci war a jiitu waaye nag la mu waxoon ni mbiram mu ne day de saa su rek mu mel ne euh, kii boobu nga xam dañ ko ràbb ba jamono yi ñu toll rek sor wu ñu kii rek ñu tàllal sor waaw ñu ne lii fu mu nekkoon grand prix bi koo ko tudd mun la waa lii fu ngeen ko jëlee bi xalaat moom ñor na xomm di lii lu tax amutoon bu yàgg waaye day doo ko jot di doog a jot. sëriñ bi sëriñ bi mel noonu. lu mu génne rek nga ni hmm. lii nekkoon. dëgg la lu mu génne rek nga ni lii mu nekkoon. sëñ Moussa man li ma ci gën a daaneel sëñ Gànna hmm. bay bii mu tudd. tudd ci sëriñ Mountakha pour mu sponsoriser alxuraan te mu def ko te mu def ko nag ndax barki dem ba ngeen dajee dem toog ak moom moo jóg dugal boppam ca biir. moom Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko Sëriñ Tuubaa bay fayal waaye Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg amiin amiin génne lim bu bari ñëw jox leen ko neen defal leen ma ko ci alxuraan bi kon dëppoo na ak bay bii bii nga wax dëgg la te barki dem bi ma àndee ak sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou mu di ko jëmbatloo garab yi sëñ Abdou Karim jël ma dugal ma ci sëñ oto sëñ Aliou moom sëñ Fallou ñu jëmbat garab yi ba ñibbisi mu teg benn bànd xasida gu ne ba bi muy dugg si ndindi mu ne ma xasida gi daal bi ñu ko tàmbalee léegi euh, ñaar fukki turi sëñ Muntaxa ak benn mu ngi ci macha nga xam dama tàngoo sama sago ci biir oto bi Cheikh Abdou Karim moom ñu du ko nuyu ndax jàpp na ci bis bii te taxaw na ci hmm. te sëñ Abdou Karim ku am jëf la te fonk ay magam te bëgg sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mamadou Bachir moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne ci kanam toujours da ngeen dégg kàddoom ak jëf ji mu ci jëf ak nag njaboot gi yëpp waaye sëñ Xaali Jaxate yegg si na yéri kaba ma bàyyi la nga nuyoo sëñ Xaali ma doog a ñëw ci seen gànn mesale salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen siyaare di leen balu xaq di leen baal xaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal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 tubaar tubaarkàlla sëñ xaalis na moon nan la lool e, waxtaan wi dafa na sëñ gànna ak bitim réew ñu nga nuy déglu léegi la Habib bi yaay woote ca Côte d'Ivoire ni Côte d'Ivoire tey kenn nelawul ndax bis bii di la kaat sëñ Tuubaa doon numéro 4 la kaat dil si ci weeru safar ñu war a yëkkati pri alxuraan mu ne ma Côte d'Ivoire ñu ngi ña nga fa sax euh, di waaj Grand danaa ci ñëw waaye nee na ma Habib Biaye nee ma tey kenn nelawul dégg nga sëñ Moustapha Gaye xasida gi mu génne ak ni mu ko tënkee foofu laa lay bàyyee euh, jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Xaadim mi di door ak si léegi noo ngi koy siyaare baax di ko dalal di jaajëfal sëriñ Moustapha ci li mu ubbee loolu li muy tegtal rek sëñ Ablaye mooy sëriñ bi moom lépp ay jëfam dafa dëppoo ki mbindam ay mbindam dafa dëppoo ki jëfam loolooy waral xaj na nit bañ caa yeggagul waaye day mel ni lépp lu lu muy def lu moom baa ñu di ko def jëmee ko ci moom tam tënku ci ni mu santaane boo ko xoolee da nga fekk fu mu ko wax wala ku mu ko wax loolu yàlla dimbale la ko sëriñ bi jëf jii nag nga xam ne njaboot gi dañoo taxaw ngir defal ko sëriñ bi day liggéey boo xam ne ku am ak setantal am looy xam war ngaa xam ne payug yàlla la waaye kawtif la surtout waxtu yu mu dikkee defe naa Sénégal miines na fi musaabaqa quraaniya ci bay béréb yu bari ak ñuy jóge fii ci biir réew mi di fekk ci yeneen réew di ko def te yàlla di leen may ndam léegi-léegi ñu del siit it bokkaat ci biir njabootu sëriñ bi kon tey bu ñu demee ba ci biir dëkku boppam bi nga xam ne moo di tuubal maxruusa di dëkk bi nga xam ne waxoon na ne sa bokk na ci sama gémmiñ mooy ñàkk fa dëkk di fa jàngale alxuraan nga xam ne bu doon koy cat di jàpp la day mel ni ki ne cat lay doon ci moom ñàkk faa nekk di fa jàngale alxuraan ay daara di fa dund bis bii ko yàlla fayee payam gu réy gi di màggal gi ñu tànn ci bis boo xam bis yoo xam ne lañ fay dajee mooy grand prix boo xam ne des cay neexal mboolem ñi nga xam ne dañ doon yëngu ci alxuraan ci jongante ca lañ ñu ko tànn ci seen façon tànn yooyu seen xaalis dana ko leeral loolu li nga ciy dégg rek mooy baaxoo nañu wax ci aw làmmiñ te mbindum sëñ bi ànd ak moom mooy sëñ bi wax na yàlla moom loo na ma alxuraan malakanil xuraan tam lii kat yadu moom goo xam ne day sax lu ni moomee mbir rek Sëriñ waa wax na ne yàlla moomale na ko alxuraan waxal na boppam ne waajahani rabbul wala bi dikri sadaqatan liya bi gayri makri yàlla jox na ma alxuraan ci sadaqatan muy bu doon li ñu sarxe mu saraxal ma ko boppam moom suñu borom moo ma ko defal loolu ilayya qaada dikra rabbi rasul hadiyatan liya wa niltu xayra rasul joxaat na ma ko it alquran ci boppam muy addiyi ci man nazaa lil aminu dikra rabbi li thamanan bi isni rabbi habbi joxaat na ma ko it ci ak njëkk ma jënd ko ba mu jar ma moomal ko sama bopp kon lan la alquran taxaw ci man awra seni samadu xayra dikri hadiyatan wa zamanan daa shukri nes koy moomee rek moom ko ci ko moom ko ñu sarax ma ko jaay ma ko te mooy tool bi nga xam ne ci la wax ne ku may doon ci nga may doon liggéeyal ko bi xidmatal kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi sëñ Tuubaa nee na kenn du ma doon ci wurus ak ngalam ak alal ju bari li may doon ne mooy liggéeyal alxuraan kon day mel ni jëf la joo xam ne képp koo xam ne ab taalibe nga wala ab jullit nga man ngaa am dogu gu wóor na tey jii boo ca tabbee ak noo ca mën a tabbee yaa ngi tabbi ci liggéeyal sëriñ bi te moom ci boppam mënee suta def ci alxuraan lu toll ni moom lim ci defoon lim ko jaraloon moom sëriñ bi ci boppam ak fonkoom alxuraan waaye ak fonkoom ñooñ alxuraan bañ ne ko ba xadis boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax ne ñooñ alxuraan ñooy njabootu yàlla ku leen teral yàlla teral la ku leen doyadal yàlla doyadal la loolu nit ki mën na koo jàng ci nga xam daf koy jàng ci jàng rek même du ko pratiquer sëñ bi nag hadis boobu du ko jëfe ndax mas naa jël ay gàtt ci njëriñ di ko joxeelu wax na joxal ma ko sama ñooñ kii séddale tàmbali koo jox waa kër gi ba mu ko yëgee da ko wol ba mu ñëw bu ne ko sama ñooñ mooy ñooñ alxuraan kon mooy li yonent bi alayhi salaam waxoon loola mooy ci ci ci ci li sëñ Tuubaa nekk dafa eggoon ci sax boo ko boo dee bind alxuraan moom mooy warlu sob dépense moo lay dundal boo koy bindal mu lay dundal loolu la sëñ Moussa wax tax ba fu nekk la alxuraan di bàyyi koo di ñëw si ci moom daaw ci doyee benn bi ku mas a yor kaamilu alxuraan di ko jaay boo ñëwee fi sëriñ bi bu dem noor la sam noor day neex bu dem tareet sam tareet day taxaw bu dem nawet nawet ba mën nga bañ a yittewoo dara te bët bu set junni kaamil dugg ci biir këram du xàmmee kaamil bu njëkk ba bu mujj ba loolu defe naa bindikat yu bari wax nañ ci ci naari gànnaar yi seere ko wax ne képp ku mu neex mën ngaa nay ci jamono ci bañ a jox njëgu alxuraan njëgam ci buñ ko bindee ba andil la bu fekkee sëñ Tuubaa ngi fi daal ku nay it yaa xam ndax wóor na ku yor kaamilu alxuraan ba def fa Ahmadu Bamba boo demee la nga bëgg lépp la nga ko am loolu naar bi leen sax du ma faale maa in ubaali ida ma daan sumaali an nii bi ajëlati xat ci masafil haali maa daama xamsul wara xayeen yu kon noonu lay mel ci jël alam di ko joxe mu ci it sëñ Mouhamadou Lamine Diop dagan nee na am na bis boo xam ne juróom-ñetti téeméeri kaamil jëndandoo na ko ci benn bis tey sëñ xaabi keroog bi ñu koy ci kër gi sëñ Tuubaa gi ci Tuubaa lu mu mu ne te naar baa jeexal naar baa jeexal day <laughs> day naa loolu ko sëñ xaabi wax nga naar baa jeexal du du njëgu baayam waaye jëmmi naar baa jeexal eh, ay kaamil lam yoroon moo jeex kon bu fekkee ne eh, dafa te sëñ sëñ sëñ Ablaay mm-hmm. li tax ku ne war a natt sa bopp ci alxuraan ji mooy sëñ Tuubaa na yii tee nit a fonk alxuraan baa nit a jàng alxuraan baa nit a jëf ci alxuraan juróom-ñaari gàllankoor la yoo xam ne comme ne ci yow doo mën ci alxuraan dara ba ci jëkk zanbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunya ixtimaadun li xaliqaati kadaaka dox fu yaqiin wa saadisuha wa sabbaxuha bi taksiir ibtilaati nit bu amee bakkaar bakkaar da koy gàllankoor ba du mën a jëf ci alxuraan noo jarul jumpoo day tax doo ko man wéeru ci nit ñi day tax ko man bëgg adduna bari biddaa ñàkk yàqin ju dëgër day tax doo man ci alxuraan moo tax kon tey lii nu woote fa Tuuba day jëf joo xam ne boo gisee njabootu Sëriñ Tuuba gi taalibe yi kilifa yi kenn ku nekk di di di di ca jaayante ba tudde ko jaayante ñii di jël saaru alxuraan ñii di jël ab lim ni nga ko waxee léegi Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni nga xam ne ñaar fukki saar ak juróom la jël ci ci jaayante bi saar bu nekk mu joxe ci juróom benn fukki junni nga huit million quatre cent la sëñ Mourou Kara joxe. ci benn bis ci benn bis. ba noppi boole ca nag di neex la ñu ko wax ndigal li ak ñu ko yëgal. yemu mu da caa boole ku ko jot li mu neexal la te wax ne moom li tax mu def ko mooy sëñ bi. loola mooy la sëñ Mouhamadul Xabaan def mooy la sëñ Jiidim sëñ Saaliw def mooy la sëñ euh, kii jenn sëñ Abibu sëñ Fallu def sëñ Maxtaar jenn mooy la mu def jàmbar la loola lan lañ ci jublu mooy wane ne tey taalibe yi ñoo daje nii ñuy màggale màggal gi nga xam ne murit bu ne lam man ak lam am da koy defal Serigne Touba tàmbalee ca ganaar ba ci gëléem damay wax ne lay amut ndax ganaar 2000 lay tàmbalee kon nit murit bi defe naa ñi ngi defal Serigne Touba grand prix ci Touba defe naa murit bu ne war naa mën a war na ko mën a wóor ne màggaru ren am na lu ma gagné am na bénéfice bu ñëw ci man bénéfice bi mooy lan fekk naa jëf junni jëfal Serigne Touba ba moo jëf ci ndax bunt yi ubbeeku la yoo xam ne dañ ku ne ak noo ca mën a jëfe ak noo ca a jaayante benn araf genn sadd benn maas benn saar ku mën kaamil bépp lu ci nekk nga jaayante ko ndax ndam la loo xam ne bu ñu koy def adduna day daje di ko seetaan adduna bàyyi ko fu ne ñu ne Serigne Touba njabootam ñooñu lislaam ñoo daje tey di teral ñooñu alquran moo tax jëf ji am solo te ku ko defal Serigne Touba defal nga ko ak bëggam ndax lépp lu ñuy bëgg kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya uxra mooy téere bi nga xam ne ci lañ yaakaar yërmande yàlla yaakaar ci mucc tey ak ëllëg kon képp koo xam ne day dabu bëggu Serigne bi fi ñu ko tàkkit doonaat meneen mbir mooy ñeenti fan ci weeru safar doon bu mag bi nga xam ne waaye na bàyyi xel ne te danañ ko ñetti fan yu jëkk yi mbooloo moom yëpp fa la ñene muy jàngale mooy ñi doon jàng alxuraan ñu war a def jongante bi. nga xam ne ñooy saytu. waaw diglu ñuy tari. Ah, ña nekk. ñi doon jàng kuy ñëw da ngay indaale sa kilifa. ba noppi ak ñi nga àndal ñu war leen a téye ci kër sëñ Tuubaa ga ñetti fan yoo xam ne mboolem lu ñuy yittewoo fa la leen di fekk. Mm-hmm. loolu nag xam nga am na lu mu laaj sëñ Ablaay dëgg la loolu moo tax ma ne ma waxoon ca jataay ba keroog ma ne loolu kat murit bi am na ci occasion boo xam ne mën naa fexe ba jëf ca ndax ñetti fan ñetti fan yoo xam ne lii mu mbooloo maanaam toll ci dong ak ñay saytu alxuraan ji ak gan ña fa ñëw yëpp ñu dalal leen ci résidence yi Amadou Bamba Xaadim Rasul te xam nga ne kooku alxuraan ku koy berndeel la gën a neex ndax gan boo fonkee boo amee sa gan goo fonk da seet la gën a mat nga di ko nga di ganale defe naa kooku alxuraan nag moo gën a yelloo ak ngan moo gën a yomb yelloo teral kon loolu jëf la ci joo xam ne ku ne war na caa taxawee incha allah ba ñu ñëw si Ibrahima. tubaarkalla fi gànn daanele mooy jaayante jot Mm-hmm. foofu nga da foofu foofu déggee foofu. Mm-hmm. jaayante bi mooy tippoo saari alxuraan yi. Mm-hmm. te saar woo tippoo ak la la euh, euh, ba ba def saar woo mën ci yow lépp doole loola. ndax alxuraan moo toll noonu. kon tippoo saar ak jaayante jot na jaayante bi nag daañu leen génneel téléphone bi léegi ñu jaar serveur bi. képp ku dugg loo jaayante alxuraan nga ko jaayanteel ak Serigne Touba. Serigne Touba alxuraan nag am na njëg dana fay. Serigne Touba du ndege dara suba. moom léegi lay fay. kon sëñ xaalis ginnaaw yaa ngi doogee si ma bàyyi la nga nuyoo saraan nu loolu tuuti yaa ngi jóge jóge ni Touba yow fu fu ngeen ci toll. jërëjëf euh, sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Gànna jërëjëf sëñ Moustapha.